gis nga Macky il a mal préparé son parti. man dama jàppoon ne bu ñu ñëwee ba deux mille vingt bi benn bokk yaakaar dafay tas kenn ku nekk demal sa bopp. waaw c'est que man sama problème mooy benn bokk yaakaar man aw ma lu may wax ci ñoom man benn bokk yaakaar aw ma lu may amul amul lu may man maa munul wax ci ñoom. base bi gisatuñ seen bopp ci benn bokk yaakaar depuis très longtemps. salaamaaleykum mbokku euh, internetu Sénégal ñu ngi fii ci euh, Fass di bëggoon xam euh, li nga xam ni moom la population sénégalaise bi am xalaat ci li nga xam ni moom la président Macky Sall war a war a def fii ak ajuma maanaam mu ñoom waa benn bokk yaakaar ñu tabb kan la ñuy choisir pour mu nekk seen candidat. waaw xam nga man dama am dama xaw a am tuuti mbetteel max ndax mooy waa Benno Bokk Yaakaar ñam. seen ànd man dama jàppoon ne bu ñu ñëwee ba 2023 bi benn bokk yaakaar dafay tas kenn ku nekk demal sa bopp ci lañ tàmbalee woon ci liñ yaakaar mais bu ñëwee ba léegi nii benn bokk yaakaar waat encore ne dañuy sampaat seen kon mooy wane ne kon ñoom kenn ku génn ci benn bar bokk yaakaar sa futi ja dee nga ndax Macky ba ko naa sax benn bokk yaakaar boog ñoom ñëpp dañoo bootool ci ginnaaw président Macky Sall muy APR kon dañ tudde benn bokk yaakaar mais dama dama jàpp ne APR mooy dox ba léegi. bi si mooy Macky Sall dafa am vision boo xam ne dafa ne woon deux mille trente cinq la li nga xam ne parti politique yëpp li ñu bi ñu dajee jox Macky Sall seen kaddu. man dama jàpp ne Macky Sall buy tabb ku bokk ci APR lay lay lay lay tabb ndax vision bi mu amoon mooy deux mille trente cinq kon man dama jàpp ne buy tabb ku bokk ci APR lay moom moom moom lay tabb mais du bokk kenn ku bokk ci benn bokk yaakaar. maanaam da yow pour yow Macky Sall ki muy tabb du génn APR. du génn APR man suma sama sama gis ak sama xalaat du génn APR ndax vision bi mu amoon la. mais xam nga généralement genre présidence yi bu dee am mhm. euh, wala boog genre coalition bu dee am euh, parti bi bu ayee. bu jeexalee beneen parti bi ñëw ba beneen parti moo ci war a topp ba beneen parti toppaat ci bu dee euh, généralement loolu remarque boobu la am ci yenn coalition yi mmh. waaw parce que bi bi ñu commencé def élection ak léegi boog ci PS moo fi nekk PDS ñëw après APR ñëw mais APR bi dafa am dafa am loo xam ne ni parti yi parti yi yi yi yi passé amuñu ko mooy APR dafa am benn coalition bu am doole boo xamante ne nii kenn ku nekk jàppal nga ne war nga mën demal sa bopp. kon tey bu ñu àndee ak moom ba fu ñu toll nii nii nii tembe tembe kenn ku nekk ci sama gis-gis man dee nañ politiquement ànd ak waa moo leen jik ànd ak waa ji rek moo leen jik mais kenn ku nekk ci ñoom fi mu nekk nii boo joxee sa kaddu man sama gis-gis li ma jàpp mooy keneen ku waa tab ba baax na. waaw parce que mooy xam nga mooy li ma wax léegi nii maanaam xam nga comme ñoom <clears throat> ni ñu àndee woon. parti yëpp dañoo structuré Macky Sall mujj juddu parti APR mujj juddu mais n'est pas euh, euh, structuré xamul comme ni ñu koy comme ni comme ni ñu koy waxee te parti yi ma gisoon yëpp ñuy dem xëy na dina wax ne kii mooy numéro un kii mooy numéro deux mais ba tey parti bi am am amu ko. APR amu ko li tax na amu ko man dama jàpp ne xëy na ponkal yi nga xam ne ñoo àndoon ak Macky Sall te kenn ku nekk jàppal nga ne war ngaa mën a yor réew mi. ñu topp ci ginnaaw waa ji pendant depi boobu ba léegi kon bu ñëwee ba léegi di nga xam ne léegi maanaam ma jàpp ne xale yi nga xam ne ñoo déjà âgé lañ pour pour pour pour war a voter koo ci laaj parti bi mooy parti bi PS maanaam kan moo ko jiite daanaka mënuñ la wax mënuñ la wax kii wala kii wala kii la kii kon loolu xam nga kon loolu dee nañ parti buñ ci mën a doon kon dañuy gis ne kon Macky Sall rek ma dafa mel ni APR moo am mais Benno Bokk Yaakaar dañ koy wax nii rek xëy na sax président Macky Sall wax bala benn Benno Bokk Yaakaar dañ sax sa xel dem ci mais dañ jàpp ne parti yi yëpp dee nañ ci biir APR man sama sama gis man dama jàpp ne APR rek am même ay benn boo ko yàgg ay kii la rek nii rek mais APR rek am man loolu laa jàpp quoi. xalaat boobu gis-gis bi ma si am mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy système bi rek parce que man man ñii man man lii lii lii lii di am nii nii nii si parti parti parti parti Macky Sall bii nii ñii man soo doon sama sogo man. ñoom ñoom pa APR si boppam du jël APR muy APR di Benno Bokk Yaakaar kenn du ci jëlaat réew mi man su ma sañoon man kenn du jalaat jëlaat kenn du ci kenn du kenn du kenn du ci kenn du ci jëlaat jëlaat. foo foo ko teg fu ma ko teg mooy réew mooy mooy fi mu toll nii réew mi réew mi mais ndaw ndaw ñi ndaw ñi liggéey wuñu fi réew mi ñiy liggéey ñooy ñaan fii nii nga ma lay wax nii ñiy liggéey ñoo ñaan benn benn benn benn kër day benn kër day am vingt cinq jeunes kenn moo ciy liggéey kenn. ki bëggoon nag ñëw nag pour changer système boobu noonu ñu ne ko yow doo fi demee jàpp ko barricade këram def def def def lu leen neex mooy Ousmane Sonko kooku moo mën a kooku moo mën a kooku moo mën a changer système bi système bi fi nekk ni kooku moo ko mën a changer kooku moo mën a jël réew bi nit ñi liggéey ndaw ñi liggéey loolu man waaw loolu ma loolu moo ci sama xalaat daal. waaw mais sama sama sa ma wax nga sa xalaat. mais sama sama question tontu woo ci sama question moo nekk nii euh, ñoom euh, kilifa yi Benno Bokk Yaakaar yi. daje nañu démb pale de la République ñu ni Macky Sall jox nañ la suñu kàddu yow nga tànnal benn Bokk Yaakaar seen candidat. yow dama ne la yow ken nga yaakaar ne waxuma kan mooy falu mais kan nga yaakaar ne ci ñoom waa benn bokk yaakaar moo war a nekk candidat wu benn bokk yaakaar selon parti yi nga xam te ni ñoo ko constitué waaw c'est que man sama problème mooy benn bokk yaakaar man awma lu may wax ci ñoom man benn bokk yaakaar awma lu may amul amul lu may maa man maa munul wax ci ñoom awma lu may wax ci ñoom booba depuis booba tey mënu ma am lu may wax lu mu aw ma daal kàddu boo xam ne war naa ko mën a wax si ñoom awma loolu wax dëgg yàlla jërëjëf wax mënu ma wax ci ñoom non xam nga fi ñu toll nii euh, man socialiste la donc actuellement wax ci Benno Bokk Yaakaar day xaw a difficile tuuti mais je pense que aussi bu fekkee compagnonnage amoon na ci diggante APR ak yeneen parti yi ñu tuddee ko Benno Bokk Yaakaar le moment venu aussi je pense que ñoom dañ choisir mais si fu ma gën a mën a wax mooy peut-être parti socialiste. te gis naa ni moment bi ñu toll nii ñoom seen bopp parti bu tey noon dafa war am candidat te ñi nekk biir benn bennoo bokk yaakaar seen biir ñoom dañu war a rejoindre beneen France bi comme sa parti socialiste mën a am candidat parce que man loolu laa gëm parce que parti mel ni parti socialiste mënul continuer di gunge ay nit éternellement coalition la woon yegg na à terme nit ki aussi dafa am lu mu moomal boppam quoi mais ay avantage waru leen fa bàyyi mooy que am nañu ñaari ministre ñu bë sacrifier ñu nekk seen ginnaaw yëpp c'est tout un combat tout un processus dañoo fi nekk benn parti boo xam ne day gunge rek jëmale jëmale kañ. kon yow euh, euh, parti socialiste dafa war a génn ci coalition benn boo ko yaakaar pour jëmal benn candidat. mais loolu mooy dëgg dañu war a booloo parce que moment bi foofu lañ toll mooy parti bi ci boppam responsable yëpp toog réunir booloo waxtaan seen biir. ñu am benn candidat. mais defoon nañ ko bii passé yàggul je pense que samedi la xaw ma ou bien ou bien ajuma mais ñoom dañu wax ni dañuy dañuy euh, continuer seen comme seen compagnonnage ak ak benn bokk yaakaar. mais loolu mooy erreur bi parce que ce n'est plus le moment nit ki gunge nga ko li nga waxoon nag moom yëpp sàmm nga ko def nga ko doy na ñi fa nekk seen actuellement seen ay privilège la ñuy sàmm rek te loolu mooy dëgg. base bi gisatuñ seen bopp ci benn bokk yaakaar depuis très longtemps. kon léegi da nga bëgg léegi base bi ci kan ci bon comme nee nga ci base bi nga bokk kenn ngeen yaakaar ni aussi moo war a ma nekk candidat wu euh, socialiste. mais base bi ñu bari dañu jëlee seen activité depuis très longtemps politique gu ñu sax actuellement am quelques responsables yoo xam ñoo fi nekk ne def benn politique au sommet rek comprendre nga ñii nekk ay ministre ñii ñu jox leen yenn postes yi au détriment du parti te loolu war na jeex ñii buñ ñu boo xam ni am na fu ñu toll dañu war boolo xool intérêt général xool intérêt parti bi intérêt parti bi mooy mu nekk parti bu foor nit ñi booloo ànd loolu mooy kii mais benn minorité fi ñoo fi nekk rek te seen intérêt accroché wu ci benn bokk yaakaar loolu mooy dëgg. Euh, justement benn bokk yaakaar kan nga yaakaar ni moom la ñu war a fal. non ñoom actuellement moom laa lay expliqué seen cuisine intern la seen cuisine intern la. mais def nañ ko démb ba joxe nañu ay kaddu ba président Macky Sall nee na euh, nañ ko may fii ak àjjuma dina joxe euh, kan moo ko war a wuutu te est-ce que ko war a wuutu warul warul génn ci biir PS nekk président nekk nekk euh, candidat wu benn bokk yaakaar. xam nga à l'époque damay fàttaliku mooy moo Ousmane Tanor Dieng on on on gagne ensemble on gouverne ensemble loolu waxu Tanor la woon donc je pense que kaddu boobu sàmm na ko ba ñu fi nekkoon aussi sàmm nañ ko wax jooju biñ ko doon wax. dañ ko doon wax par rapport ak président Macky Sall mais contexte bi dañuy war a tànnaat boo war a tànnaatee da ngay dellu foo jëm foo nit bu xamatul fu mu jëm da ngay dellu fi nga jóge loolu mooy dëgg ala kuli aline aujourd'hui Benno Bokk Yaakaar mënoo wax ba ñu tànn benn candidat boo xam ne parti socialiste lay jógee c'est pas possible mënu mënuñu tànn ben candidat boo xam ne parti socialiste lay jëm donc seen biir rek APR seen biir rek lañ mën tànn candidat da nga bëgg xel kon benn bokk yaakaar mooy APR. mais mais mais lu lu ci parce que bu fekkee tey ñu ngi tànn ci candidat yi ñu ci yu sérieux yi ñu tudd dégg nga ci benn socialiste amul amul. et pourtant ñu ëpp si ñoom am nañu am nañu taxawaay bi am nañu étoffe bi ay homme d'état lañ mais dégg nga ci benn bokk yaakaar ñun dañuy choisir candidat socialiste déggoo ko ñan nga fi dëgg mooy ay ay ay ay membre APR authentique loolu sax mooy seen mot c'est des APR authentiques Abdoulaye da Diallo ngay dégg moom nga fi déglu Amadou Ba ngay dégg Abdoulaye Diouf Sarr ngay déglu Aly Ngouille Ndiaye ñooñu c'est des apéristes ban socialiste nga ci dégg nit aussi da ngay xam sa bopp wala nga xam sa valeur mënoo topp ci benn kii bu ndaw rek ay privilège yu ndaw rek nga bëgg sacrifier loolu loolu àdduna doxewul noonu aussi parti parti aussi bu demee parti bi mel ni parti socialiste mënuñu ko seetaan nii rek nii mi mi mu continuer dem ci yoon boo xam ni kenn du wax déedéet ce n'est plus possible. waaw xam nga ñun jeune jeune Sénégal kenn ku nekk même buñ ko waxee buñ ko waxul ñun am nañ suñu candidat de un mais démocratie dafa bëgg kenn ku nekk tamit nga am koo xamante ne moom ngay jox mu mu mu mu taxawul la. kan mooy Sénégal yi. Sonko. loolu moom c'est évident loolu moom doo ko laajte fenn kenn du ci kenn du ci kii. te léegi euh, démocratie dafa laaj. dafa laaj tamit kenn ku nekk nga mën a ak foo mënti bokk nga am candidat boo mën a teg kenn ku nekk nga bëgg nga tànn ko loolu mooy démocratie Sénégal ci loolu la Sénégal yàgg dox. bu tey tamit waa benn bokk yaakaar dañu am lu ñu kii ñun tamit am nañ suñu avis am nañ loo xam ne mën nañ ko gis di ko xool di ko seetlu ñoom posture bi gën a baax instant bi ki gën a taxaw ci posture bu gën a baax mooy Amadou baax foo teg loolu. waaw moo gën a fës c'est le premier ministre moom moo gën a fës amoo amul kenn koo xamante ne bokk na Benno Bokk Yaakaar ku ko ëpp responsabilité dans ce pays te bi gis nañ biñ ko biñ ko boolee ci liste Dakar yi affaire yi ni mu changé woon donc euh, xëy na peut-être moom mën na am impact boo xamante ne xëy na yeneen ñi duñ ko am. Euh, pourtant am na yeneen candidat yoo xam te ni au niveau de de de APR ñu ngi leen ñu ngi leen ciy tudd ku ci mel ni ay Aly Ngouille Ndiaye ku ci mel ni ay. Euh, Euh, Abdoulaye Daouda Diallo et cetera bëri nañu. waaw mais yow pourquoi nga def choix xam nga tamit booy def dangay ngay ratisser large Aliou Ndiaye boo koy wax li Linguère moo tax ngay wax. ba ñu ngi si élection présidentielle élection présidentielle c'est tout le Sénégal Amadou Ba ñëpp ñëpp xam nañ ko quoi faralu ma ko ànduma ak moom je le connais pas mais ñëpp xam nañ ko quoi ñëpp xam nañ ko à travers le pays donc peut-être c'est le meilleur candidat pour eux. kan mooy nekk candidat benn bokk yaakaar pour février 2024. non foofu moom pour man instant bi Amadou moom moo fay kii moom. Amadou Ba foo teg loolu. non ah dama xam ni kooku rek fi mu ne moo ci xaw a présentable xaw a rek. présentable mooy maanaam moo ci xaw a kii quoi euh, liggéeyam moo ci xaw a mel ni moo ci fës daal liggéeyam moo ci fës fës pour taxawaayu candidat ñoom xam nañ loo sax ñoom seen biir. xam na ni fi mu toll nii Amadou Amadou Ba dong moo nekk ci kii bi moo nekk ci eh, yoon bi pour pour ki waaw bu dee à lool bu wéyee nag mag Sall moom décision yi mu jëloon fan yii kontaan nañ ci. mooy lan mooy décision yi du bokk troisième mandat loolu moom kontaan nañ ci te en plus nag li muy wax nii nii ci kaw fi mu toll nii na ko jëfee ci suuf mag Sall pour mu jubóog Sénégalais yi fi mu toll nii lu yomb la. mooy sénégalais yi defal leen li nga xamante ni moom lañ bëgg te mu jaar ci yoon. mooy mooy nga bàyyi ko war a bokk bokk nga maanaam li li yi jooytu ko ne xam na fi mu toll nii. du waaw mooy mooy suñu leader bi di mm, leader Pastef di Ousmane Sonko nga xam ñu ñëpp moom lañuy ñuy topp ñu bàyyi këram gële ñu bëri kàddu mu deñ ñu boole ko ci candidat dëkk bi am jàmm kenn ku ne doxal dëkk bi métti na fi mu toll nii. te dara waralu ko lu coow yu ñàkk fayda yooyu rek te loolu lu lu lu lu ñu war a mën a régler la ci régler bu gaaw du yàggul sax. Euh, coalition benn bokk yaakaar ni muy dox ni ma koy ni ma gisee ñuy doxale ah de bés bu ne diw mooy suñu en candidat naa nag maa ngi dégg rumeur yi naan Amadou Ba man xam nga lu ma gis foofu ah fissure. day tas man daal day man si li ma gis gis nga Macky il a mal préparé son parti. yow nag nga nag ngay nekkee douze ans de pouvoir amul dauphin comprends nga président boo yoree pouvoir benn parti dafa am benn dauphin. maanaam parti bi dañ ko war a structuré. dafa structuré mu am structure am benn am benn am benn ligne de conduite mais APR moom mooy euh, parti boo xam ne man de mosuma gis dégg seen congrès depuis 2012 mosuma dégg seen congrès comprends nga. parti nag war ngay war na war na am na am école de parti comprends nga siège bi toujours ñuy def ay euh, nu mu tudd ay rencontre yoo xam ne comprendre nga am benn koo xam ne yow Euh, à part président moom mooy nekk le secrétaire général. mais euh, APR am na école du parti de. am na man xam nga man loolu xam nga loolu xaw ma ko ndax APR APR APR ni ma gisee ni ma ni ma gisee ñuy doxalee ni ma gisee ñuy doxalee comprendre mais yow doo gis doo yow da naan kii amuñu ba structure ndax yow à part ah yow doo ne kii mooy le secrétaire général bi kii mooy le trésorier kii moo yor lii kii moo yor lii comme ni ko daan xamee si PDS ni ko daan xamee si yeneen ay parti socialiste yeneen parti yi. ay RND yi ay parti fi ay ànd jëf mais APR dafa nekk daal loo xam ne daal danga nga ne yow APR à part waaw wi du du waxtaan wi. waaw euh, benn bokk yaakaar benn bokk la waaw. AFP ci la la bokk coalition bi quoi. waaw. nga la ñu tabb. mu nekk seen candidat en 2024. non fi moom su ma la nee diw la si coalition bi ah damay boobu doo dégg ko waxee rek bu fekkee c'est benn bokk yaakaar la bés bu bés bu désigné kenn. te nag yàlla bu ko muy désigné jege trop trop trop APR. ñeneen yeneen coalition yi gars yi dañuy demal seen bopp. yeneen yeneen parti politique yi yeneen parti yi dañuy demal seen bopp. mais fekkee ni aussi kon yaakaaroon yi dinañ joxañ ñu ko mooy moom mooy mooy tas benn bokk yaakaar déjà maa ngi dégg AFP Alioune Sarr maa ngi koy dégg depuis depuis for fort longtemps maa ngi dégg ñu ne. Euh, AFP dañuy dañuy dañuy dañuy kii dañuy dañuy dañuy investir Aliou Sarr. waaw moom yàgg na depuis ay weer a ngi ci ginnaaw. boobu maa ngi koy dégg boobu ba léegi cela veut dire que même PS ñu ngi préparé congrès maa ngi dégg ba dem ñu ne PS woote nañu jeudi bi passé dégg naa ñu ne woote nañu comprendre nga cela veut dire que moom bés Bokk Yaakaar mu bokk si APR rek yeneen parti yi dañuy demal seen bopp dañ koy dañ koy wan ginnaaw ndax euh, coalition boobu noo ko mi gisee gars yi seen intérêt moo leen fa bàyyi mais c'est pas pour développer le pays mais seen intérêt moo leen fa bàyyi